Lamine Gueye chargé de communication bu OFOR fii ci commune de Touba ñu nekk fi di liggéeyal OFOR ci ndigalal DG directeur général ak Bamba Sarr mi taxaw ñu jëm ci màggal kon xam ne ni màggal buñ koy wax ndox a tax kon mën na ni màggal bu ndox mi baree rek lépp jàng na comme ni ñu ko waxee fukki camion ak juróom ñoo ñëw tey la 4 suba juróomi fan la 5 fukki camion ak juróom dana ne ci terrain bi képp ku soxla ndox numéro téléphone yi ñu leen di jox boo ca wootee daan leen di ndox ci doo fay dara bi ci jiitu mooy 77 950 96 96 mooy benn numéro bi jiitu beneen bi ci topp mooy 77 5 461 29 70 beneen ba ci topp mooy 880 30 30 ñetti numéro yooyu numéro boo ci woote des na la indi camion ndox ba sa kër ci doo fay dara comme ni ñu ko waxee 15 camions mooy départ suba la 5 suñ demee ba la 10 dana yeneen 15 yi ñëwaat fukki camion juróom muy fanweeri camion ñoo war a daw la 10 suñ demee ba le 17 dana am téeméeri camion ak ñaar fukki camion ak juróom muy cent 125 camions ñoo war a ñëw le 17 pour gérer màggal gi ci noonu comme ni ñu ko waxee ñun effort yàgg nañ ko wax ñun nekkuñu kuy jaay ndox loolu état moo génn ay moyens pour ñu may askan wi ndox ci màggal gi bu boobaa nag képp ku soxla ndox boo war a desal la jot ndox mais nag am na problème yi amoon ci fan yi passé ci màggal yi ñu génn mooy ku na xam ne ni asalem ñoo problème waaye ASLM am na forage bu bees boo xam si bokk na ci ëpp doole muy Touba Daaru Xafoor ga ci ginnaaw hôpital bu bees ba foofa des na fa jël ay tuyaux mu dugg aselem jaaxasoo ak tuyaux ya fa nekk pour ndox man fa am beneen bi ci toppaat mooy fi problème bi nekk mooy xayra tey sunu waa direction ñeera gri bi foofu lañ xëy tey pour saytuwaat xayra ndax ku na xam ne ni xayra ay jafe-jafe bari na fa mais ci noonu teewul techniciens yi dem nañ fa ba gisee waa xayra fas nañ yéene ci fan yi di ñëw des na fa raccordé waat ay tuyaux dana mën a jox waa xayra ndox bu fépp dajulit am na beneen forage bu ñu fa war a ubbi muy jànnatu salaam moo ne ci ginnaaw garage bu bees bi booba des na ko ubbi bu soobee yàlla balaa màggal ndox mi dana mën a dugg xayra 2 mën a jàppale ak xayra 1 foofu yëpp jàpp na ni jafe-jafe dana faa ñëw beneen ba ci toppit am na forage bopp 5 ans ngi ni juróomi at doxut muy kër kàbb ca kër kàbb bokkul woon ci forage Touba yi waaye ci ndigalal directeur ak suñu kilifa yi taxaw dugal nañ ko ci forage Touba ba barki démb dugal nañ pompe bi yóbbu nañ fa groupe ba essayé ko mais groupe dafa mel dafa xaw a néew doole yóbbu nañ fa courant wàcc nañ courant ba waaye ci fan yi di ñëw lu gàtt des na ko dugal ci réseau Touba bi branché ko ci courant bi muy dox jo mooy kër kàbbu mu jaxasoo ak réseau boobaa li féete kër kàbbu ak Dominique ndox ma dana mën a am foofu doole loolu parce que ñeen fukk la ak ñaar mais ñeen fukk ak ñaar yet da nga ci génne ay nu raxmati ndax bokkul ci réseau bi beneen ba ci topp it mooy ndox mu neex mi daanaka xaaj bee dugg mais xaaj bi duggul waaw kon FKB e génn ndax FKB e dafa yàqu te buñ màggalee pare danañ ko defar kon mën na mënoonoo jàpp fanweeri forage ak juróom-ñeent léegi ci noonu fas nañ yéene daaw ñi nga tolloon fii ñu toll tey bi ñu tollee tey ñu ngi nekkoon ci 35 pour cent ci wàllu ndox tey fii may waxee yow ñu ngi ci 85 pour cent ci ñi am ndox kon 15 pour cent yi ca am na ñaari forage yoo war na ak benn réservoir 6 ki bon nga ca saam gu sëñ euh, Abdou Latif des na ko sol ba mu fees ñu fas yéene koo dugal ci réseau bi pour nit ñi am ndox ca loolu moom c'est la première la mosu fi am askan wi li leen sàkku mooy ñu raxas seeni i mbalka ak seen i baaj ca xool fii seen ñu defar ko ca it ñu dimbaluñu ci pompe yi ñuy def ci kër yi ndax tey bari na lu effort di def ci ay moyens ba ndox di am waaye pompe yi ku def pompe ci këram fii ndox ma dootul romb dem ci geneen kër ay jafe-jafe la kon ñu ngi sàkku askan wi ngir yàlla ak jëmi borom màggal gi ñu arrêté pompe yi ba màggal gi jàll bu munta ñàkk ndax bu boobaa nit ñi ñu war a ñëw mën a gis ndox mi waaye boo sampee pompe war nga samp superviseur su boobaa askan wi ngay xañ ndox ñu bëgg koo sippi effort ci effort def li war a def ndax fii ma xew benn forage képp moo yàqu mooy FKB ci doon ko après màggal mais ji des yëpp ñi ngi daw 100 pour cent fi ñu toll nii benn amu ci problème waaw foofu daal lañ toll ci màggal gi